aas kan wi ba jàmm ngeen yendoo ñun de moom la ñu fanaane lu def waxu nag lu ay di jàmbat ah bisimilaay jàmm la solo yéene kaay lañ koy xëy daal di dooree mu ne suñu réew mi de ma ne ko li nga xamante ni moom la ñuy natt ak la ñuy xëy ma ne ko di ko xayma ci suñu budget bi ñu ni 2018 ñu ni ñetti junniy milliards yu tegal juróom-ñaar téeméeri million ak ko lu toftal ci suñuy koppar budget 2018 bi ko Macky Sall fa la ko bëgg a daal di jëmale waaye nag yemul ci loolee taux de croissance ba ña ko daal di natt xayma ko ci 7 pour cent yéene bi dellu di xamle ni daal loo ca mënti dégg it daanaka lu jege pour cent ci li nga xamante ni moo di lan dépense yooyee ma ne ko ak hors dette nga xamante ni consacré nañ ko ci secteur sociaux yi Macky daal ma ne ko boo ko xoolee ba ca biir daal regain compétitivité bi fii ci Sénégal ak ko ouverture AIBD bi yëral yéenekaay bi am ca lu la leer enquête yéenekaay nit ñi xëcc ma teg waaye nag ko dooma fa ba l'observateur it nga xëcc teg ñaari yéenekaay ñëw xëy nag ci li nga xamante moo di chiffre yooyu ñu xëy daal teg milliards yéene kaay bi daal di koy xamle ak lu topp dette publique ba yéene kaay bi xayma ko ci cinq mille huit cent vingt sept milliards ak lu topp yëral yéene kaay bi ñu ni deux mille de croissance ba ñëw na ca de waaye ko leneen loo xamante ni nañ ko ci yéene yi xamle ko ci moo jëm ci wàllu recrutement bi yéene bi dellu di xamle ni tamit boo ko xoolee ba xool Macky Sall mii de ay milliards la yor daal ma ni ko di distribuer loi de finance deux ñu ni ko ak gi ñu jëm yëral mille 3990 agents supplémentaires ku yebu ni xalaas laas yéene kay dellu na di ñu xamal ni ñu daal coowul Khalifa Sall la ñu xëyee daal di ñu koy xamal ni ñu nag ay avocat am fi mu toll nii la ñu bëgg nag moo di lii nga xamante ni moo di xeex bi ñuy xeex bañ a yamati ci Sénégal gi internationalisé nañ ko Barthélémy Diaz au département d'état des États-Unis ma ne ko pour lan Willy Pande kii di Macky Sall ay avocat wu xalifa Sall nag daal di saisir nag justice su CEDEAO bi ñu foog ni foofu lay yam les échos yéene kaay bi ñëw daal di ànd ak beneenub yéene procureur xëy ba tey daal di addu ci coowul Khalifa Sall waaye mu mel ni daal na nga xamante ni moom la ko jigéen ñi nag fa seene daal di amalee la di combat ba moo di ay tabati yadda yamu ñu ca de ñu ne ay alam kay fa yëral yéene bi xool mbóot yi nga xamante ni nag de moom la nag ko loolee ma ne ko daal di làqoo yëral yéene kaay bi am ca lu la leer lépp nag ci nag ma ne ko fexe ay pexe yu nga xamante ni dana daal di libéré Khalifa Sall yamaguñ ca loolu de waaye fi mu na de avocat yi ñamit ma ne ko contre un procès waaye rassemblement àllarba yi nga faxas les écu 24 heures daal di taxaw addu nag ci saisine bi nga xamante ni am na ci justice CEDEAO bi ah kaay Xalifa Sall yi nag bëgguñu bàyyi ma ne ko dara mu daal di sedd yéenekaay bi dem na ba naan ku nguurug Sénégal nag fi mu toll nii mi ngi mel ni ku tëx ci mbir mi ma ne ko bañ ci daal di addu te nag gis na ñu ni immunité parlementaire bu Xalifa waaye condamné Xalifa mi wala at te ko sax de ma ne ko salfaaña yoon ma ne ko da caa nekk ndaxte mbir mi mënul ne assemblée nationale it war a daal di addu ci mbir mi ngir daal di matal lii di séparation des pouvoirs Dakar Times di ñu xamal ni ñu ah acte trois ba de ku ko doon xaar ginnaaw gis nga un deux quoi coowul ki nga xamante ni moo di Cheikh Kanté et ancien DG bu port yéen kay bi di dellu di xam le ni daal lu tolloog téeméeri million ak ane ko juróom-ñeent fukk ak ane ko juróom-benn daanaka ñaari téeméeri million rek yu nga xamante ni viré nañ ko ci société bii di SDF yeneen yéen kay bi xool mbir ma na muy mujjee l'évidence yéen kaay mu mel ni daal nañu yore woon li nga xamante ni moo di port autonome bu Dakar ba xam Umar Fay loolee da tey daal di jouer avocat wu kii di Cheikh Kanté wala déet lu mu ci mënti doon daal xamle na ni ña nga xamante nii daal ñoo nekk ca suuf di doon ay maître chanteur danañu addu ci seen i mbir Le Quotidien yéen kaay lu ñu xamal ni ñu yéen a ko doon xaar mbir ma nag mel na ni sotti na de maarif daal ko fi mu toll nii de altine ji lay waajal daal di daal di samp nag ay gojam yéen kaay bi daal di xamle ni daal occupation wu yan ko yabu Silim Guède la ñu fas yéene daal di yóbbu ma amalu selub rentrée yëral yéene bi am ca la leer waaye de ma ne ko libération yéene xam le ni daal Erdogan mu toll nii la mu bëggoon kon sotti na ndaxte nag ci école yowu silimi ña nga xamante ni ñoo di ay nitam bàyyi ko ci maarif googee noonu association boobu nag ñooñu teew nañu yéene kaay bi di libération ba tey ànd ak ñun du ñu xamal ni ñu association bu daal di ànd nekk ci tëgg wëndeelu ay faux documents yu nga xamante ni am na tukkee nag ko ci nguur gi yenn saay sax nga daal di taxawe tànk boo xamante ni doonoo ko ba ci labaj ay carte ba ci labaj ay koppar yëral yéene kaay bi am ca lu la leer Cheikh Tidiane Seck Azarat Aminata Gueye Sanginatu Baro Dia mu mel ni ñooñee dama ne ko dañ leen daal di piégé am déet yëral yéen bi daa ca am lu la leer laataa ñoo tàbbi nag ci réew mi quotidien ni ci réew mi la daal di xewee mu daal di addu ci livre blanc bi nga xamante ni BDS na ko kii di PM bi yër ko am ca lu la leer stade yéene di ñu xamal ni ñu mondial 2018 bi attaque suñu lion yi mbay ñaande mu mel ni nag ma ne ko la nga li mu bëgg mooy mu leer nee na nag envisagé wul benn report ci combat bi li mu bëgg mooy mbir mi daal di mat te daal di jeex pare na nag ci niveau yu ne Modou bu ko neexee mu dem fu ko neex Ama Boy Niang 2 ëmma au front Pikine de ah ngi ci pied de guerre bi de l'observateur yéenekaay bi ñu delluwaat ginnaaw tuuti mu ñëw rek lu jëm ci wàllu émigration clandestine bi Agadez ma ne ko la daal di jóge jaar nag ma ne ko ci trace yi nga xamante ñooñee di bàyyeekoo Sénégal gii di fàq di dem fan yi jaar yéenekaay bi dellu di xam ne ni daal doon daal di addu ci addiya ji nga xamante ni soxnaas Béthio ma ne ko jox na Serigne Béthio Thioune mi yëral yéenekaay bi xool ndaxte nag lu tolloog deux cent soixante-dix millions ah nee nañu nag géej ma ne ko mambulaan ay loxo du ko téye la leer laata ñoo àddu ci ma ne ko càkku tëf ma ne ko saay-saay gi nga xamante ni dawalkatub jakarta def na ko as soxna su nga xamante ni dafa marié ah yéeni bi xam le na ni daal teg na ko ëmb yàmb ca ñeenti weer noonee ma ne ko mu daal di koy avorteel pat pataaral da caa am wala lu xew ca biir mbir ma yëral yéeni kay bi ñu yéene ñëpp jàmm ndax li ñu war a wax a bari ko kenn ngëpp na ko ñëpp coom as lëf ci yéeni kay yi jaa ngeen jëf